coow li billaahi lu mu métti métti ak lu mu bëri bëri Sénégal du dëkku violence ñun xamuñu xamuñu coow euh, sénégalais bu bu wàccee xeex rek boobu sës na. sénégalais bu wàccee xeex rek booba sës na. je pense que moo tax nag xam nga pour man seetaan gi dafa bari dafa yàgg seetaan gi dafa yàgg en fait dafa dafa dañu waroon a régler problème bu yàggee on l'a pas fait depuis tout ce temps là euh, il faut comprendre que Nabou malheureusement violence lii lay indi lii lay jooyloo nii moom moom lay indi malheureusement sa yu violence amee Euh, da nga ciy gis ay nit ñoo xamante ne laalewuñu taqewuñu sax seen yoon nekku ci malheureusement euh, ñoom mooy li wolof njaay di wax naan ay du yam ci boppu borom bu nu ko dee wax kàddu yi moo tax boo déggee nit ñi di di di di favoriser li nga xamante ne moom mooy euh, tout le temps jàmm ak paix parce que lii moo tax moom laa lay wax sànq ne la ku xamul ku xamul violence lu mu war a mën a jur ci réew rek amaana moo koy bëgg moo koy bëgg sooxee saa su nekk. ñuy jooy gis nga le calvaire des Sénégalais. nous on le vit au quotidien les gens ne peuvent même man des fois ma toog sama kër nit woo ma je pense sax des fois mu seetaan ma ne ma dama la gis nga ne woon sa lii mooy sa page ma bind la après je lui envoie mon numéro mu woo ma ne ma est-ce que mën nga ma wutal liggéey. waaw mu ne ma même bu dee raxas kër sax bëgg naa. Mhm. parce que amuma souvent mu woo la ne la lii ak lii ak lii laa am ci diplôme. Mhm. amuma liggéey. Mhm. souvent nit woo la ne la. non pour de ay somme yu yu ndaw may ma mille francs may ma 2000. may ma 1000 francs mais ce calvaire la sénégalais yi di ko dund ñu bëgg ci teg boo waree wax ñu ne la bul bul wax nga war a manifester ñu bañ et finalement ñuy boom suñuy raq te man je ne peux pas comprendre ba tey mënatuma mënuma comprendre suñu force de sécurité yi man nan nga mën a jàppee koo xamante ne jàkkaarloog ki nga xamante ne yow. amul arme amul dara amul arme amul dara nga boom ci kawam. Mhm. j'arrive Mhm. je n'arrive toujours pas à comprendre et j'aimerais bien comprendre. Et ça nous rappelle euh, au rond-point ci ci mars 2021 ces images là ak ce bain de sang bi nga xamante ne euh, seetlu nañu ko démb ba ci démb image wu par exemple hôpital bu Ziguinchor tout ce bain de sang là bi nga xamante ne euh, ñu ngi ko doon filmer euh, et que ñi di ko gis qui étaient des images assez traumatisantes par rapport ak ñi nga xam ne ñoom ñoo koy seetaan mais solidarité bi am entre manifestants sax booy xool bu ci kenn gaañoo ñoom ñoo koy téye ñoo koy jagat-jagatee ñooy daw ñoo koy yóbbu hôpital mais loolu lay wax mais c'est ce par exemple ce ce ce vieux là qui a été euh, qui a euh, abattu dóor ko ba mu ba mu ba mu ba mu dee ca ngor mhm. te procureur génne génne communiqué di wax ne euh, dañu ko dóor parce que euh, dafa doon liggéey vigile la woon mais tenue yi mu soloon dañuy dañoo defoon ne gendarme la mhm. ba tax ñu dóor ko dóor yu metti loolu li nga ciy jàngat mooy <coughs> relation bi relation bi war a dox diggante force de l'ordre ak population bi maanaam regard bi ñuy xoolantee xam nga damay dégg xale yi ngor di wax souvent naan diggante bi mënatu rafet ñaaw na ba pare. Mm-hmm. ndax jotu lim ñi ci jot a ñàkk seenu bakkan ñi ci am ay gaañu gaañu kooku manaam yow foo séenatee nit ku sol tenue rek te koo xamante ne yow il est là pour ta sécurité en vrai. il est là pour assurer ta sécurité c'est pas quelqu'un boo xamante ne man a war na ngeen a wan a regard di xoolante ni en chien de faïence te on en est arrivé à ce stade là degré de violence boobu non non c'est différent force de sécurité yi ñun waruñu leen ñu leen ragal dañ leen war a respecter voilà c'est ça et te ko jaawale léegi dañ ciy boole non seulement dañ leen di respecter par force parce que loolu lañ ñu jàngal loolu lu moo nekk ci mais dañ leen war a non warul ragal sax moom amu ci yoon parce que nag wax dëgg yàlla tenue bi nga sol rek moo la protéger bu mm-hmm. dul woon teg tenue bi boo ko summee da ngay nekk personne lambda comme tout le monde mm-hmm. donc tenue bi nga sol xëy na moo lay jox cër bi nga war a am euh, donc aujourd'hui vraiment on le on le regrette on le regrette et man de vraiment euh, ñan naa réew mi nabu Euh, jàmm jàmmaam fi mais jàmm il faut que ñu ba ñu battee ko ci ay base yu base yu dëgg base yu solide yoo xamante ne mooy doon pilier bu bu bu fondamental bi et surtout euh, nañuy déglu askan wi loolu c'est hyper important je pense que c'est le moment pour que vraiment ñu comprendre ne euh, le message du peuple est, est important à décrypter et au-delà de décrypter il faut le comprendre et le saisir sa juste valeur loolu mooy war a mën a tax ñu génn ci phase de transition bi nga xamante ne moom la ñu nekk dëkk bi nekk na ci situation bu bu doy waar boo xam ne seetlu nañu fi ay tension yoo xamante ni ki démb tàmbali na euh, tey journée tey xamaguñu lu ci ay xew euh, on attend de voir un peu euh, comment les choses vont évoluer mais dans tous les cas c'est regrettable de constater effectivement ay nit yu ci ñàkk seen bakkan ay nit yu ci am ay gaañu gaañu et il faut il faut écouter ce peuple là il faut leur accorder importance bi nga xamante ne moom la ñu am il faut ñu bàyyi xel ci ressenti a bi nga xamante ne moom lañ leen di wax et ce message là il est simple il est clair il est net on veut un Sénégal boo xamante ne maanaam justice daf koy tënk on veut un Sénégal boo xam ne euh, dañuy respecter li nga xamante ne moom mooy li li li wundu yëpp ñuy war a mën a war a mën a war mën a wax ne Sénégal dëkkub exemple la dëkkub démocratie leneen lu tënku il faudrait que aussi ñu comprendre ne peuple bi mooy décider peuple bi moo am moo am kattan moo am doole peuple bi le peuple est souverain et loolu yëpp c'est hyper important et qu'on ne euh, qu'on ne fasse pas euh, plus de mal à, à, ce Sénégal bi nga xamante ne qui souffre intérieurement de tout ce qu'on est en train de traverser en ce moment même ñu ngi wax mais euh, ñu ngi jot euh, information comme quoi Euh, monde religieux bi dafa nekk en deuil je je cite Sénégal nos confrères bi ñu xamal information bi ne Cheikh Bekay Kounta il est rappelé à à Dieu Euh, c'est le guide religieux fils aîné de Cheikh boo qui a tiré sa révérence ce mardi euh, moo nekkoon septième xalifu papam euh, vie ak œuvre xalif bi euh, également wax nañu ko donc ñu ngi koy jaale ñi nga xamante ne kon ñooy famille kunta kunta yëpp yan yàlla yërëm ko te xare ko aljana yi gën a kawe di jaay seedi wujud te tas nu ci barkeel wax dëgg yàlla di di ko di ko di ko naqarlu bu baax ak ñi nga xamante ne moom ñoom la jiite woon yëpp di famille famille euh, kunta kunta yooyu yëpp ñu ngi leen di eh, jàll encore une fois euh, naqar bi nga xamante ne yëg nañu ko encore beneen kilifa boo xamante ne jóge na fi lii moo lay wan ne àdduna nabu koor bilaay dara jaru fi dara euh, ndax ëllëg du añ du reer waaye lu mat a la te il faut ñuy sóoraale suñu bàmmeel itam il faut ñuy sóoraale suñu diggante ak yàlla suñu borom foog ñu comprendre ne doole bi ak kattan wi yàlla suñu borom rek ko am benn doomu aadama amu ko lu waaye am rek yàlla suñu borom moo la ko àll bu dee ci kàttan moo la ko àll bu dee ci mën-mën euh, te loolu yëpp nag boo ko dee topp nga war a xam ne yow nit kese nga voilà nit kese nga euh, yàlla sunu borom rek moo am droit de vie et de mort mhm. ci doomu aadama bu mu mënti doon waaye du du nit koo xamante ne ben yow yaay jël décision wu xëy na yenn yi nga di ca yegg donc ñu ngi koy jàll encore une fois famille kunta kunta bi yëpp ci naqar wi nga xam ne moo wàcc ci seenu kaw euh, fan yële passé ñàkk nañu benn kilifa laa laayeen mhm. tey ñu ñàkk kilifa ci famille kunta kunta yi euh, donc sunu njiit yi sunu pap yi itam ñu leen di ñaan ñoom itam ñuy waxtaan ak seenu askan nanu dee waxtaan ak seenu askan bu baax a baax faudrait pas que ñu noppi seetaan ci li nga xamante ne moom la Sénégal di dund fu mu nekk nii il faudrait pouvoir tenir le langage qu'il faut euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite tenir le langage qu'il faut euh, par rapport également à cette jeunesse là et surtout il faudrait pas li nga xam ne ñoom mooy seenub yaakaar seenub espoir ci ñoom la ñu wéer seenub lépp ñu am sensation ne lii dañu ko bëgg faagaagal bu ñu doxalee ci sens boobu rek je pense que jàmm dina dellu si waat parce que kenn ci ñun amul intérêt mm-hmm. di nekk ci mbedd bi di xeex ba ci ñàkk sa bakken wala nga ciy jëlee ay loraange euh, doon na loo xamante ne Sénégal moo ciy perte Sénégal moo ci ñàkk parce que doonul image boo xam ne image bu rafet la ci réew mi et surtout ñi nga xamante ne ñoo ci ñàkk seenub jege ñaale ñëpp li ñu am ci naqar nit mënu ko wax ba compenser douleur bi nga xamante ne nañu ko Euh, ñi nga xamante ni itam ñoo koy constater di am lu leen naqari nit noo wax ba trouver les bons mots pour calmer li nga xamante ne moom mooy naqar bi ñuy yëg ci seenub yaram yëpp donc et pour terminer je dirais tout simplement na bu yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi yàlla yàlla sàmm njabootu Sénégal ak fépp fu mu mënti nekk euh, que mu nekk fii wala ci région bu mu mënti nekk ci Sénégal li may ñaan mooy kenn bu ci kenn bu mu ci ñàkkati seenu bakken euh, bu ndax gis nga ndaw bu ci ñàkk bakkenam ci ëllëgu réew mi bu ñu fàtte ne cette jeunesse là bi nga xam ne moom la ñuy jànkoonteel tey cette jeunesse là moo yor avenir u dëkk bi cette jeunesse là moo yor le lendemain de ce Sénégal euh, donc à la limite ce qu'il faudrait c'est pouvoir les protéger ce qu'il faudrait euh, mooy ñu permettre leen ñu mën a am enseignement bu baax ce qu'il faudrait mooy ñu permettre leen bu ñu jàngee ba pare ñu mën a am ay liggéey yu baax ñu mën a gis seenub réew maanaam ñu mën a évoluer mën a am ay projet de vie euh, bañ leen a gis ñuy dugg ci gaal yi di di dem di wuti ji tugal ndax yaakaar amatuñu yaakaar ci sunub réew bañ leen gis ñuy déserté seen ay village parce que gëmatunu maanaam lu nu war a mën a liggéey ci suuf si ak ci mbay mi ñu bañ leen a gisati bu ñuy traîner par exemple dans la rue bañ a am benn occupation jusqu'à être exposé au danger ñu bañ leen a permettre ñu tout simplement mën a joxe seenu kaddu ak seen voix via billet yi nga xamante ne mooy permettre ñu mën a wax ci wàllum démocratie que ce soit euh, le billet électoral euh, ñu mën a def seenu tànneef sans pour autant que ñu craindre quoi que ce soit je pense que tous ces jeunes là yéene bi ñu am ci ñoom borom sàmm leen ñuy juddu màgg fu nu war a màggee am lu nu war a am tedd nu nu war a teddee te kenn ku ci nekk mu doon pour le plaisir de tout un chacun cette jeunesse là est une jeunesse importante mooy or bi nu am mooy alal bi nu am mooy teraanga bi nu am te ci ñoom itam la ñu war a mën a dëgg-dëgg dégloo kàddu yi nga xamante ne moom la ñu mën a wax pour kër ñu xam ne ñoom seen baat dafa am solo ci réew mi bëgg-bëgg bi nu am dafa am solo ci réew mi wàcc gi ñuy wàcc di xeex nii léeg nga ciy gis ba ci ay tuut tànk yoo xam ne yegguñu fenn ci wàllu at mais détermination bi ñuy àndal tu xëy na peut-être sont même pas conscients mais peut-être sont réellement conscients comme je dis le président de la République que génération bi mu tombel dafa doon génération bu consciente génération bu éveillé ndaw démb yi ak ndaw tey yi duñu benn ndawu tey yi dañuy nekk ay ndaw yoo xam ne danoo décider par rapport ak cet avenir u réew ils ont envie de se prononcer que ñii ñi déglu leen li ñu leen war a dégloo et ce sont pas des gens yoo xamante ne dañuy toog rek di subir les les bras croisés également ñu ngi bàyyi xel ci li nga xamante ne noonu la réew mi di doxee te ñoom it dañoo am wàll ci réew mi war cee mën a gis seen bopp bu baax a baax donc yéene wi du mooy gaañ gi du mooy ñàkk bakken gi yéene gi mooy kenn ku ci nekk ci ñoom gis boppam ci réew mi pour un Sénégal meilleur yi merci pour ta pertinence ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax également avant d'oublier Ajaratu mhm. ñu ñu bàyyi xel presse bi parce que ñi nga xamante ne ñoo yor ay télévision de daanaka sénéral da leen tënk mhm. da leen tënk tënk boo xamante ne image yi nga xam ne moo xew ci manifestation yi sax duñu ko mën a génnee lu dul def ci ay édition spéciale euh, te souvent dañuy gis que ni euh, loolu amul woon en 2011. Mhm. parce que image yu bëri dañ ko doon gis fu ci mel ni Walfadjri ak yeneen i chaînes yi nga xamante ne dañ daan wone loolu noonu. Mhm. waaye fi ne nii. ñu ñu leeral que ni CNRA moo leen tënk. Mhm. ba loolu mënuñu ko lu dul ay édition spéciale mënuñu ko ci def ndaxte bu ñu ci defee lu dul lu mooy lu ñu daal di koy tëj te dafa am ay ay ndaw yoo xam ni fa la ñuy liggéeyee wala li ñuy am as par weer. fa la ñu koy ci ci loolu lañu ko lañu ko lañu ko yaakaar. waaw loolu itam c'est c'est c'est ah, enfin CNRA moom man moom. <laughs> je crois <laughs> que ñi xam point de vue euh, par rapport à à ça euh, mais Nabou li tax réseaux sociaux yi en tout cas yenn chaînes yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk les chaînes YouTube et autres am doole euh, loolu la parce que yenn information yi yenn image yi ci ñoom nga koy amee mais même ñoom tamit ils sont exposés au danger parce que aujourd'hui xam nga coow li mooy bu manifestation amee ki wàcc ci suuf di couvrir mënuñu koo xàmmee ak ki nga xam ne dafa dafa bokk ci ay manifestants manifestation manifestants yi aussi bëgguñu ku leen ku leen filmer kuy jël seen image ak seen kanam évidemment et ça c'est compréhensible donc les médias classiques ne peuvent pas faire grand chose sauf que aussi dafa am benn droit boo xamante ne c'est le droit à l'information loolu itam foog sénégalais yi mën cee jote aujourd'hui boo gisee chaînes yi ñu mën a am yenn yenn doole beeg yenn kàttan yi mais chaîne bu tudd cinq sax par exemple kooku li mu mën a am ci image xuus dugg ci biir manifestant yi wala xuus nekk ci ginnaaw alkaati yi par exemple découvrir mbir mi ni mel loolee yëpp nag ben c'est c'est enfin am na ci ay ay ay yoo xamante ne ñoom ci seen jëmmi bopp mën nañ ko donc j'en appelle aussi à la prudence de tous les journalistes et la responsabilité aussi nabu des journalistes yi nga xamante ne nekk sur le terrain parfois damay damay gis yenn couverture yi bu ñu ko dee def ci manifestation yi ni mel euh, tu as l'impression que euh, na ñu ma ko baal ci ñu ma ko sañ wax dafa mel ni ñenn ñi foo la ñu ko jàppee alors que du foo Euh, le travail de relais d'information est un travail hyper important. Mm-hmm. Il faut savoir le faire. Il faut avoir l'habitude surtout de couvrir les manifestations. lu ku mu neex rek no beaucoup de responsabilités parce que na la leer ne kàddu bi ngay jël bi ngay wax ci instant bi nga koy wax parmi des milliers de personnes yoo xamante ne ñu ngi lay suivre en direct noonu yow ci ñi ngay wax ci noonu la ñuy amee repère donc il faut donner la bonne information il faut penser aussi à la sensibilité des personnes yi nga xamante ne ñoom ñooy seetaan c'est-à-dire même en qualité d'image du image yëpp également la ñu war a wane loolu itam c'est important que journalistes yi xam ko et ça je m'adresse à nos confrères yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci site yi sites yi nga xam ne ñooy yor seen téléphone ñooy dugg di filmer et tout ça donc loolu itam nañu koy bàyyi xel bu baax a baax parce que c'est la responsabilité du journaliste dans un pays boo xamante ne dafa nekk en situation de de de conflit wala mu am ci dëkk boo xamante ne dafa am situation de tension bu am ay manifestations yeneen yi ni mel c'est la responsabilité du journaliste qui prime par rapport ak information yi nga xam ne dañ koy joxe du ay faux quoi du ay faux il faut mettre beaucoup de sérieux par rapport ak liggéey bi ñuy def il faut mettre beaucoup de professionnalisme également par rapport ak li nga xamante ne moom la ñuy liggéey donner la bonne information éviter tout ce qui est la manipulation loolu itam c'est hyper important et regardez bien li nga xamante ne moom mooy angle bi nga xam ne moom ngay traiter yow sa sa sa information am nañu doole dëgg la am nañu kàttan actuellement la mais il faut s'en servir à bon escient pour l'utilité de faire un travail d'amateur loolu moom j'en j'en appelle vraiment à la responsabilité euh, sunu confrères journalistes yi nga xamante ñoom ñoo nekk sur le terrain euh, sinon aujourd'hui euh, l'actualité c'est vraiment le tribunal c'est pour cela qu'on va pas rester trop longtemps sur ce plateau parce que bëgg nañu xam également tribunal lan moo fa xew naka lay mujjee ci procès bi nga xamante moom moo ñeel yëf yi wa ñu ngi ñaan yàlla def jàmm sàmm bépp doomu amati yàlla sàmm ñëpp euh, def jàmm itam ci réew mi waaye jàmm googu day fekk ñu doxal dëgg kon dëgg googu nañu ko jiital ci lépp loo xamante ne moom la ñuy dox mm-hmm. aussi li mu wax ci journaliste yi dëgg la na ñëpp jël seen responsabilité que ñu nekk ci terrain bi ak euh, ñi nga xamante ne ñoo nekk ci plateau télé yi ñu xam ni euh, mën naa ni sax avenir wu fi mu toll nii Sénégal daanaka li ci ëpp dafa nekk ci seen i loxo war nañu mën a bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne dañuy koy <laughs> véhiculer démb dafa am ku ma doon seetaan. mu wax wax ba daaneel di journaliste jékki-jékki ne source TikTok ma ne ko d'accord comme TikTok mooy sa source yàlla baax na alors ñu. mais man damay seetaan ñoo xamante ne dañuy nekk en live c'est-à-dire nekk direct di couvrir manifestation. Mm-hmm. mais nag bu ñu ngay waxtaan ci wet wi. day dégg seen i waxtaan non da ngay dégg lépp. ñu ngi waxtaan. parfois dañuy am sax ay commentaires yoo xamante ne ni c'est des commentaires désobligeants et loolu loolu c'est pas le rôle du journaliste. je suis désolée aujourd'hui les sites font un travail extraordinaire dëgg la mhm. parce que fépp foo xamante ne média local bi mënu fa yegg munoo fa gis groupe de presse bu fa taxaw parce que dans tous les cas moom jamono ji nit ñi mer nañ mer goo xamante ni caméra bu fa taxaw moom boo moytuwulee yow moom tu vas en payer les pots cassés man seetaan naa direct boo xamante ne ay journalistes ñoo doon def le relais foofu à Ziguinchor mais ñooñu manifestant manifestants yi dañoo dañoo mujjee wëlbatiku ci ñoom di leen sànni ay xeer ba toj vitre ñoom fa ñu nekkoon ñun suñuy joñ ci jëmmi boppam dund nañ ko ayof bi ñu xëyee dem euh, ndaw yi dañ ne leen ni bu leen ñu filmer parce que bu ngeen fi nekkoon démb gone gi ñu faat duñ ko dugal ci saako ndax bu ngeen relayer woon information bi à peut-être mbir yi du du du yegg fii waaye euh, fi mu ne nii euh, li ñuy gën di nemmeeku rek mooy euh, mel ni dañoo xaw a bàyyi suñu loxo ci ci ci liggéey bi et c'est pas le moment de de de lâcher ce peuple là mais aussi ñu am responsabilité bu toll ni xam ni informer loolu li ngay endossé moo bari. waaw mais d'où l'éthique et la déontologie. Absolument. on te dit informer juste et vrai. Mm-hmm. euh, donner l'information que tu vois, mais dans le plus grand professionnalisme. Et puis le respect de, la personne qui suit. par mhm. exemple même bu fekkente ne internaute la internaute bi lay seetaan na nga ko war a jox cër boobu maanaam booy booy boo nekkee ci live nga nekk ci direct nga xam ne li ngay nekk nii yaa ngi ci liggéey bu sérieux mhm. nekkoo ci liggéeyu caaxaan parfois dañu koy reetaanee nii nag di gis mhm. mais voilà il y a rien de drôle là-dessus en fait c'est après les gens vont se retourner contre les journalistes pour dire que euh, il faut être professionnel jusqu'au bout des ongles loolu c'est hyper important euh, pour le respect de la de la corporation et pour le respect de ceux yi nga xamante ne ñoom ñoo mérité information bi te ñoom nga koy jox et comme je dis en situation de conflit le traitement de l'information est autre loolu il faut le comprendre Nabukor bu ñu nekkee ci réew moo xamante ne dafa am ay manifestation am yu xew daa am yow journaliste bi taxawaay boo war a am en terme de responsabilité par rapport à la l'information bi nga xamante ne moom ngay joxe et loolu j'en appelle vraiment au rédacteur en chef ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi jiite ci kër yi ñuy bàyyi xel bu baax reporter yi ñuy bàyyi sur le terrain ñuy xool itam bu baax di suivre li ñuy liggéey en terme de de de de de d'information li ñuy joxe ci firnde gi ak ci par rapport ak image yi ñuy joxe loolu itam c'est hyper hyper hyper important on leur félicite pour tout le travail qu'ils font euh, ak ñi nga xamante ne vraiment ñu ngi ciy def liggéey bu ama am solo yépp euh, mais euh, voilà il faut la responsabilité et cette responsabilité il faut ñu jël ko dans tous les sens du terme et respecter li nga xamante ne moom la éthique ak déontologie tënk bépp taskatu xibaar boo xamante ne yaa ci biir liggéey bi euh, nga jël ci sa responsabilité par rapport ak li nga xam ne moom ngay def. l'heure de la revue des titres ndaxte ni ko mami waxee tantôt bu ñu yàgg ci plateau bi ndax faw ñu euh, bàyyi antenne bi ak suñu njoñ yi nga xamante ne dañ leen di yebal euh, fële ca tribunal